bus Sénégal daan na ko xam. mais daan yem ci ay bus yoo xam ne dañuy dàq nit ñi taal ko. mais bii pas ah oui. bien sûr. nga teg ko fan. mais ci document bu bu waa Pastef élaboré. Hmm? bu ñu tuddee stratégie pour la pour le départ anticipé de Macky Sall da caa bokk la bloquer le transport transport boo ko bëggee bloquer nga attaquer terre attaquer BRT commencé defi attentat dana mujj nit ñi dootuñu dugg ci woto. dem beeg dikk bi taxaw. oui attaquer banque yi. dana mujj banque yi dootuñu def dootuñu ubbi te ba gab yi dootu def bu ko defee économie bi taxaw. loolu moom liir naa kenn ci ñoom mu koy wax Ousmane Diagne wax na ko nañu attaqué gab yi. bu benn ubbi c'est vingt et un vingt et mhm. de Macky Sall Maodo parti c'est des c'est un parti terroriste gi kay mooy yéex gee jàpp ak yéex gee di sudd. Mhm. waaye ñàkkoon ko def moom su ko Macky Sall defoon. génnam ci génnam ci histoire Sénégal lu lu. Ah, ñaaw ñu wax léegi nag ci parti bi nga bokkoon te nga xam ko lool.